jërë ngeen jëf mbokk yi mbokk yi nag bu ngeen gisee foofu mooy Tiwaawan bu Seydil Hadji Malick Sy mbokk yi nag foofu mooy sit bi nga xamante ni moom la ñu terrassé defar ko tudde ko gaaya gaaya bu Seydil Hadji Malick Sy bi nga xamante ni fa la soxna Fawade Wele juddoo mbokk yi foofu ma leen di wan nag moo jàkkaarloo sit bi nga xamante ni moom lañ tudde gaaya gis ngeen miir boobu site bi moom la ñu miiree noonu ba mu àgg gis nga mbedd boobu laa leen wan di mbedd 30 mètres bi nga xamante ni moo jàkkaarloog miir boobu ñu tudde gaaya li tax ñu def ko nag mooy ñi bëgg a dëkkaale ak Seydil Hadji Malick Sy nga xamante ni ñoo ngi ci àll bi wala seen kër a ngi Tiwaawan bu ñu bëggee parcelle bu yomb te baax ñu ñëw fii woote ci 77 422 72 62 ñu jaay leen ci parcelles yi nga xam moom la ñu tudde gaaya bu Seydil Hadji Malick Sy mbokk yi gis ngeen ko ñu ngi noonu ci biir fi nga xam mooy terrassement bi ñu tuddee gaaya mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu di terrassement bu tàlli borne nañ ko ba pare waxtaan ci ak ñi nga xamante ni ñooy municipalité bi ci dëkk bi. waxtaan ci ak impôt domaine mbokk yi gis nga ko mu noonu mu am ay kayit yu leer mu ngi noonu mbokk yi gis nga ko site baa ngi noonu nag nit ñaa ngi commencé ñëw di ci wax képp koo xamante ni bëgg ngaa dëkk Alex Seydil Hadji Malick na nga gaaw ñëw ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy parcelles yi mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu muy suuf si joor si tàlli foo xamante ni courant baa ngi fi. ndox maa ngi fi parce que nit ñi commencé nañu fee tabax ñu duppee ko nag gaay bu Seydil Hadji Malick ñi nga xamante ni bëgg nañoo dëkkaale ak Seydil Hadji Malick daal ñu ngi leen di wax képp koo xamante ni bëgg ngaa dugg ci li nga xamante nii mooy bëgg ci parcelles yi ngir dëkkaale ak Seydil Hadji Malick ñu ngi lay wax nga woote ci 77 422 72 62 422 72 62 di 92 parcelles yoo xamante nii defar nañ yëpp ba pare terrassé ko ba borné ko ëppoon na 92 parcelles waaye ci bari dañ koo jaay waaye mbokk yi ñuy wax ne daal képp ko xamante ni bëgg nga ci na woote ci numéro boobu ñu la wax di nga jot ki nga xamante ni moo lay yóbbu ba ci site bi wan la numéro yi wan la plan bi nga xool kër bi nga bëgg ñu jaay la ko mbokk yi dañuy wax ni képp ku bëgg a dëkkal ak Seydi Hadj Malick na nga gaaw woote ci numéro boobu bu ko defee dinañ la orienté incha allahu rabbi mbokk yi gis nga Tiwaawan bu Seydil Hadji Malick ngi noonu defar fi benn site tudde ko gaaya bu mam faa wadu wele li nga xamante ni fa la Seydil Hadji Malick gane àdduna loolu nag xandeer la bu demee ci waa tukkiwul dafa ñibbi